wax ne maam Fatou Diop sama doomi ndey bu xewlee rek damaa war a ñëw teew jàkkaarloo moom defanteeg moom ay xeetu baax baax ndax kooku xale baax la xale yaru kooku borom xolu jamaa la la daray wax te day njëkk day day teel a xëy di mujj a wàcc bëggul daray góor Macky Sall mi ne waa Touba da koo bañ waa Touba ba ñu ñu Macky Sall maanaam affaire yi cadrement bi rek moo xaw a des te nitu Touba moo demee noonu te yaakaar naa su fekkoon dañoo bañ Macky Sall taux bi mu fi am tey du ko fi am ndax daan nañ fi campagne te am na ñu fi daan nekk ñun ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci terrain bi doon yéeg ak a wàcc ñun xam nañ ci dara te gis nañ tamit bu baax a baax a baax bàyyee ak moom te yéen waa Touba bëgg naa ngeen xam ne Macky Sall moo ngi ñëw dal ci seen kaw te bu ñëwee doole lay dikkee Marème Faye Sall tamit mi ngi ñëw ak ay projet ak yeneen i xeetu baax baax macha allah. yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jéggalu aussi toogaay bu yàgg bi nga xamante ni toog nañ ko fi di xaar mais ragal naa ni lenn rek moo ko waral ay nit leen ñoo xamante ni ñu bokk gëm-gëm bokk pas-pas moom moo ñu dajale fii. li sant soxna maam Fatou Diop mi nga xamante ni moom moo woote fii maam Fatou Diop nag lii bu ko defee wàcc na ndax kilifaam bi mu àndal ci politique muy Serigne Cheikh Abdoulaye Mbacke Gaïndé Fatma bi élection yi jàllee moom moo fi def lu kenn mës ta def comme ni ko président Moustapha Diakhaté waxee daan jàmbaar dëgg moom mooy dem ci lu mel nii élection yu mel nii ku nekk gis ni résultat yi demee nga am force ak courage dajalewaat ñi nga doon àndal ñëpp teg leen ci bërëb di leen sant mooy wane ni yow ñeme nga fi nga jëm ak ñoom bi mu am mooy silence bi noppi gi ku nekk gis na ni situation yi demee mais kenn mësu koo dégg ci télé wala ci rajo mu tontonte wala mu wax benn kàddu xamantene rek nit mënees la ko dégg ni li señ bi wax kon ñun ñi and ak mom war nañu dolé sant yalla bu baaxa baax tay xolaat suñu bop parce que señ bi dafa innover classe politique nga jëmalé len fa ku nekk gis na ki nga xam mom lay jappalé muy le président Macky Sall li nga xamantene def nako ci dëkk bi ta résultat yi ñu am fi ni mënul téré mu bañ ko def ndax ku am gëm-gëm la ku xam fi mu jëm la ndax nee l'essentiel gagné mo amone solo ta suñu borom dimbalé nañu ba gagné nan kon dañuy sant yalla sant len yeen ñi bu fekkee woo nañu nag ci liggéey ci mu jëm ci Touba ñun ñëpp war nañoo xoolaat suñu bopp takkaat suñuy laxasaay ànd ak moom ndax du jëmale fenn foo xam ne du suñu njariñ kon soxna si ñu ngi lay sant di la gërëm. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di ci nuyoo bi nag sama sëriñ sama xarit sama nijaay monsieur Abdoulaye Mbacke Guèye Fall. tàcc leen mangi ngi ay jambaram ndax xamna naa ne jàmbaar yi ñoom it ñu ma lañ ci bis ma leen di sante bu baax di teg ci nuyo bi semu Thioune sama nit bu ma tuddee Sémou Thioune nag mel naa ne tudd naa mboolem koo xam si xam baay waaye maa ngi sante sama jigen ñeena nga xamné nak nag lu xew rek yalla ak ñoma ku ci melni ni Kana Diop rek suma ko tuddé tudd ñepp suma su nak damay di damay dikkaat Daaru ndax man awma lu fu Xudoos ndax lu mu guddi guddi rek fi lay finance ma ngi leen di sante ñoom ñepp di leen gërëm di sant nag ki nga xam ne moom dama koy beral sant muy Omar Diop ndax day sama càmmiñ bis bii lu ci am ak lu ci mel rek yàlla jëm ma tax grâce à comme nit mënut a sant nee nañ ku ñaan du sant ku soxor du sant kon man ku ma defal lu baax dama koy wax bu ñu teew yi beneen bi ci topp bis bi wootewu ma ko pour puukare wootewu ma ko ngir ngistal bis bi fo agré laa ko indi ak sant ñi nga xam ne na damaa doon campagne ñëw ci sama koñ sama waa koñ bépp génn jàppale dinaa ñëwaat sargal sama waa koñ moo tax ma leen di sant di leen ci gërëm di xam ne ñun politique bi yàlla moo ñu ci natt muy bëgg te ko bëggee mënoon ngeen ñoo xeex ni ah waaye da ngeen ñëw ñëw jàppale ci ñun seen doom lañ ak am nañ bëgg ngeen ñëw fekk suñu ci ndax koñ bi man ñi fi nekk xam naa ne aw noonu man ñii sama yaay ñii sama yumpaañ sama jabari nijaay yéen xale yu góor yi samay rakk beneen bi ci topp a may sant sama leader ndax man aw ma lu Cheikh Abdou Bally te ba élection jubee ba tey damaa ubboon sama kër a ak moom te la ma doon a ak moom mun na Serigne Touba Mbacke bu doon keneen manoon na ne ah man kat waa Touba lañ ma waxoon kat la ci ëpp defuñu ko mais tax teew tey ba ma woote waatee daa yebalaat ay nit jàppale waat ma ma leen di xamal ni nag Macky Sall waa Touba ba ñu dañoo bëgg ñu xam ne jigéen ñi ñooy fal te ñooy voté ngeen jàppaat seen bopp gëmaat seen bopp xam ne Macky Sall méréw leen leen ni Macky Sall méré na waa Touba méréw waa Touba foo taxaw ni doo bi mu am Touba bu ko amutoon ñu dem deuxième kon Macky Sall méréwul waa jigéen ñee ngi nag nañ takku mi ngi jàpp mi jigéen ñi rawatina jigéen ñi Touba ñun jàpp ñi ci gis doon seen bopp fexe cee gis seen bopp ah luñ ci mën leen ko ci def am amutoon DER bi am bi ñu daal lii nag li tax ma woote ko foo rek la agréé ak jàmm suñ président gagné na ndam lañ doon am nañ ko nañ feete suñu victoire lii rek mooy bis bu baax du